ah gars yi gars yi Omaro wat na bopp bi Omaro jëfee na ndigal li barke Serigne Bamba Omaro jëfee na ndigal li Omaro wat na bopp bi jëfee na ndigal li barke Seexul Xadim kon nag Sénégal maa ngi leen di ñaan ngeen xam ni Omaro mi taalibe Serigne Touba pire la te lu bëgg lu mu bëgg rek Serigne li bëgg la bëgg barke Seexul Xadim mi ngi nii ndigal jëfe moo toog ci kanamu sëriñ bi ne tuub na tey jéggalu sëriñ bi ne ko sa bopp bi neexuma dem na wati ko barki sëriñ Bamba waaw ak mbokkum taalibe barke sëñ Bamba war ci ab sëriñ ak ab taalibe waaw gisal ko loo xam ne jàpp ne du njariñ mu wax ko lay njariñ mu def ko billaay wallaay moo waaw lay sànni amiin